Thank you. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu am mbégte di ñëwaat ak yéen ci xibaar yi fii ci studio Dunia Production TV bokk na ci li gën a fës muy directeur général de la SAED di Samba Ndiobène Ka moom mi nga xam ne dafa jagleel centre de santé Elisabeth Diouf bu Daara ñaar fukki lal ak juróom ak matériel médical boo xam ne li ko tax a jóg rek moo di faju euh, Samba Ndiobène Ka profité na ci occasion bi jox ñi nga xam ne ñoo di ay tailleur toll ci fukki machine ngir ñu gën a waajal li nga xam ne moo di tabaski bi honorable député Anie Mbengue moom nag euh, génne na un million jox ko ñaar fukki imaam a juróom-ñett yi nga xam ne ñu nekk ci daara ci loolu aussi profité nañ ci occasion bi joxe waale euh, téeméeri téere ak juróom fukk ngir imaam yi nga xam ne ñooy jiite ci jumaa yi ci wàllu politique rek la ñuy tëjee xibaar yi euh, ki nga xam ne ni mooy euh, Cheikh Sidi Ndiaye nekk coordinateur départemental bu parti socialiste moom doon woote benn ndaje fële ca këram ñoom nag bi biñ ca génnee fas yéene jàppale président Macky Sall comme ni ko Ousmane Tanor Dieng waxee woon fan ya ngir euh, élection yi nga xam ne moom lañ jublu di élection présidentielle 2019 bokkoon na ci li ci gën a fës ci wàllu xibaar ci kanam tuuti ñëw ak ci faram bi. mbokkee xarit yi seetaan fii ci Dunya Production TV seen kóolute la ñuy sago kattan yàlla karangeem la ñuy dimbali ko ñu wax rek ci li nga xam ne ni moo di directeur général bu SAED moom doon jagleel centre de santé Elisabeth Diouf bu Daara lu toll ci ay ñaar fukk ak juróomi lal d'hospitalisation ak matériel boo xam ne li ko tax a rek moo di faj kii di Samy Ndiobène Ka moom it euh, jox na tailleur yi euh, fukki machine ngir ñu gën a waajal tabaski ñu teewlu directeur général de la SAED di Samy Ka ci caméra wu Modou Mbaye arrivé li ñu def nag c'est simple Euh, Yalla def président de la république son excellence monsieur Macky Sall dafa décréter 2018 année sociale année sociale nag moy jàppal ma japp ñu dimbalante que Yalla def loxom jot gennawam mëna a jàppale keneen ki ba aussi am une situation bu améliorer. année sociale nag suñ ko waxé fogna naa dara jitu ko ci parce que nag olof yi dañu naan bala naam nefa kon balaa def développer dara balaa ngaa wax dara nga wér et ci wàllug santé gi lu bari def nan ko fi au niveau de dara waye suñu cër la aussi comme que docteur ñu ngi fi di def ak bëccëg suba ngone ay effort pour améliorer environnement sanitaire bi ñu yoré ñun aussi liñ ci man ñu góorgóorlu ci. ci fànn woowu la am dans le cadre de nos part de nos partenariats avec suñu ay nit ay sénégalais comme ñun ay jolof jolof comme ñun. Nous avons un lot de matériel important Nous avons actuellement actuellement premier conteneur bi moo deuxième conteneur bi à la fin du mois d'août et nous aussi par rapport à ak jeunes nous yi que c'est un événement ñu avons un talent Nous avons que nous ku leen nous ñu dem président Macky dit tout le temps il faut participer activement à l'amélioration de l'environnement de l'emploi du Sénégal et à ce niveau nous gëm nañ ne pour nga jàppale doomu gën cee yomb mooy ka nga xam ne yàlla may na ko métier mu man ko lay des mooy nga wutal ko jumtukaay mu man cee avancer def ci lu mu man ni ñuy jëfee tey am na suñu naataangoo euh, doomu réew mi doomu Jolof ñu ciy def lu mu ëpp li ñu def le plus important pour moi c'est que ka ciy bénéficié wu ka ciy jariñu mooy la population du Sénégal euh, la population du Jolof. ndaje mi nga xam ne nii ñu ko doon amal rek fële ca centre socio collectif bu Daara ci la ñuy desandi ndax ki nga xam ne mooy directeur général de la SAED moom nag àdduna ci wàllu mbay mi nee na li nga xam ne moo di autosuffisance en riz maanaam fexe ba euh, ñi nga xam ne ñooy producteurs yi di bay mbay mu am solo fii ba ceeb bi ñu mën koo jëfandikoo moom nag nee na lu mën a nekk la ba tey rek ñu teewlu sàmm Ndiobène Ka ci caméra Dunya Production TV. baxna ñu xamné autosuffisance en du état kese moko yoré état de ci am wàll wayé ñay financer aussi moy ñi yoré banque dañ ci am wàll mais ñoñu egg au delà de ñom aussi producteur bi dem tol da ci am wàll parce que état su defaree aménagement indi ay groupe moto pompe indi ay tracteur banque bi financé té producteur bëggul ñu dem ñaq dem ci tol yi do dem producteur bi en mais producteur bi su timide, timit bee ba paré su amul ay yu transformé lolo aussi la mais le yalla ba président a encore plus de 5 milliards de ko de crédit pour la transformation ñep kep ko xam nga transformer fofu da ngay ñu mettre en place cette commercialisation cette transformation mais su l'olvs aussi organisation des commerçants du Sénégal parce que nous aussi su doon tey ceeb bi transformé nañ def nañ lépp ba mu paree ñoom ñu ne ko fa ñukk dem feneen indi ceeb. boobaa si chaîne bi du dem. ba léegi rek ñu desandi ca centre collectif euh, bu Daara euh, ki nga xam ne mooy honorable député di Annie ngi moom nag dafa dajale woon imaam yi nga xam ne ñooy jiite jumaa yi ci Daara ñu tolloon ci ñaar fukki imaam ak juróom-ñett moom la yëkkati na koppar yu takk yu tolloog ci un million séddale leen ko waaye yemul foofu ki nga xam ne ni moo di honorable député Annie Mbengue moom nag jënd toll na ci téeméer ak juróom fukk ci ay téere maanaam kaamilu alxuraan jagleel leen ko ñu teewlu responsable politique APR bi di Annie Mbengue ba tey ci caméra wu Modou Mbaye sant yàlla sant département de Linguère ndax euh, ku ne xam na ne bi ñuy bi ñuy nekk gone ba léegi ci diine la yëngu ci diine la ñuy yëngu mooy dañu jëlale politique lii politique def ko def ñu ci fekk waaye lalu ko bi ñu fi nekkee ba léegi nekk ay xale dañuy ànd ak daara yi di leen accompagner di accompagner nitu diine yépp amuñu ci woon xaaj amuñu ci woon seen tey nag ma gis ne ak euh, ndomba tànk bi ma yàlla def war naa mën a wane ne ñun dañuy delloo njukkal ndax delloo njukkal mooy ba ñuy commencé tamit demoon nañ ci kenn ku ne ci ñoom mu sànni ñu ñaan ñaanal ñu yàlla may ñu ndam ñaanal ñu élection yu am ci jàmm jeex ci jàmm loola yàlla nangu ko kon tey jii doon na rafet tamit tabaski bu jub see ku xam ne ku ne xam ne tabaski ni mu màggee ñu def lii tey accompagner leen dimbale leen ci tabaski bi joxaale leen ay kaamil alxuraan ñaan ñu ñaanal président de la république ñaanal monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye ñaanal population bi yëpp ñaanal daara ñaanal département de Linguère. tey sedd na lañ 150 kaamil ak une enveloppe financière de un million loolu li tax ñu def ko pour vingt 24 imam li tax ñu def ko tamit mooy dañu xam ne ne imam yi ñoo yor lépp fii bu ñu ñaanee yàlla nangu. ba tey rek dañuy descendre ci député boobu ndax euh, ñu koy waxee yattaale boobaale la def moom nag wax na lu jëm ci wàllu politique mu di parrainage bi nga xam ne ni moo xew euh, ndax nee na ñi nga xam ne ñoo de ay militants nekk fii ci département bu Linguère waruñoo def lenn lu dul yëkkati seen carte d'identité jox ko responsable yi nga xam ne ñoo fi nekk ngir ñu falaat Macky Sall ndax kenn natablewul ne def na fi liggéey bu am solo rawatina fi nga xam ne ni moo di fii ci commune bu Daara ñu teewlu Aniya Mbengue ba tey ci caméra wu Dijalosko. ku ne xam ne ne parrainage yaxanal na alalu Sénégal parce que alalu Sénégal yaxanal ko mooy am na ñu daa dem élection dañ daa loué seen parti pour ñu am xaalis donc moo doon tax ñu jël créer parti loolu bu fi jógee loolu dañ koy euh, féliciter président de la république beneen bi mooy département de Linguère muy daara gi ñu nekk ñun dañoo war a tuta am fenn fu ñu far lu may doomu jolof yi nga xam ne ñu ngi bokk ci gouvernement bi di liggéey ngir jolof di œuvre ngir jolof ndax ku ne xam na ne li am ci département de Linguère ci nguuru président Macky Sall mosu fi am kon farfarloo waruñu def lu dul àndandoo ñun doomu jolof jàppale ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur ak bépp responsable fi nekk ci département bi ñu jàppale euh, président de la république mu gañewaat ndax ku ne xam na ne dëgg la mi ngi liggéey maa ngi dégg jeunes yi ñi ngi wax fii côté bi mais président de la république li mu def ci département de Linguère bu xool daara kese nañu xool li mu def ci département de Linguère bi yëpp. te loolu bu ko defee doomu Jolof yi ànd ak moom moo tax mu may ñu opportunité boobu kon pare naa damay sensibiliser nit ñi nañu tee suñu carte jox ko président de la république ndax kat li may wax chaque chaque jour ku xëy ku ne yàlla dina la fay sa ngont te xam naa ne tamit liggéey na loo xam ne du député gi ma doon. mais tamit damay jiital sama àqulaay taalaay li gis mu def ci département de Linguère benn gouvernement mosu ko def. ci wàllu politique rek euh, la ñuy dese ni ndax fédération départementale bu parti socialiste yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Linguère ñoom nag doonoon amal ndaje mu yaatu fële ca kër Cheikh di Ndiaye gannaaw bi nga xam ne ni waxtaan nañ ci lu jëm ci njaayum carte mi ak li nga xam ne moo di parrainage ñoom nag euh, bi ñu génnee ci réunion boobu fësal nañ ne dañuy jàppale ki nga xam ne moo di président Macky Sall ngir mu faluwaat ci élection présidentielle yi ñuy dëgmal di 2019 ñu teewlu

bëgg am dara ci biir ki bi dañ naan ñi ñoom lan lañuy def tay ji nak lañuy lañuy tambali di wax nan parti social warta am ki mais buñu amone candidat tay ñu ne ñi ñi ñi dañu ñi ay traiteur lañu loolu lañuy tambali wax ñeneen day dal tambali ne ñi buñ démé ci campagne lan lañuy wax nit ñi parce que ñun mëno bokk nit and ak mom ci biir gouvernement and ak mom député and ak mom nek ci biir yena bokk ben ben ben ben yena bokk ben coalition ngeen bokk groupe parlementaire am mu nekk benn président groupe parlementaire nekk fa ngeen bokk au conseil nekk fa nekk am ay yeneen ndomba tànk ci biir nguur gi ba pare bëgg a yeew dem def campagne boo demee looy wax. te chaque mercredi ngeen di bokkandoo conseil des ministres décision yi ñu fay jëlandoo programme yi le PSE et ngeen di ko discutandoo di ko tabaxandoo di ko defandoo ba pare dem campagne boo demee campagne lan ngay wax sénégalais yi. loolu moo tax ñu daal di ne li gën a yenu maanaa mooy ñu wut benn candidat ci biir Benno Bokk Yaakaar daal di. ànd ak moom dem dem coalition. xibaar yi nag laataa ñu koy tëj dañuy ñëw ci ñi nga xam ne ñoo di communicateur traditionnel yi ñoom nag dañoo jànkontoog ay jafe-jafe yu tara tara tar ndax ngir tëgg benn manifestation dañuy wut li nga xam ne moo di autorisation maanaam kayit buy wane ne mën nañoo tëgg te am benn jafe-jafe te yoon dal seen kaw loolu nag kayit woowu pour ñu am ko euh, dañuy dem fële nga xam ne moo di li def ñaari aller ngir mën ca jot te bu njëkk da ngay jëm fi nga xam ne moo di sous préfecture bu Sagata ñu jox la ki nga moo wax ci seen tur di ci ñu gën ko xam ci buur ñu tawlu ko ci micro Modou Mbaye xam nga suñu wax bi dañ koy wax pour euh, toute la jeunesse de de Daara alors euh, xalé yu bari di ma ci interpeller ci né ni ñuy wuté autorisation bi di dem Linguère préfet signé ko mu ñëwaat Daara yobbu ko gendarmerie yobbu wat ko ci préfet Linguère mu signé ko ñu soog indi indiwaat dara Euh, que ñaari aller retour Linguère yi vraiment suñu mënoon a fexe ba di ko am fii ci dëkk bi te duñ ci paasante di dem ba Linguère moonu gënal ñun nag ku ñu xam xam ne ñun lu baax defar dëkk beeg lu ko euh, baaxal rek ci la ñuy dox ci loolu la ñu nekk moo taxoon ñuy lancer un appel vraiment ci ci ci ci ci ñëpp moom préfet sax ci boppam ndax moom it ku baax la alors euh, que moi euh, chef de brigade ñu waxtane donte na sax dañu jubali directement à la gendarmerie ñu lijjanti ko foofu lépp hein, ñun ñun ñun ñun moo gënal vraiment di passe di dem Linguère ak ñëwaat fi Daara donc paasaat delluwaat Linguère ñëwaat Daara muy ñaari aller retour euh, lool dal bëggon na ñu jappalé ñu ci. xibaar yi fii ci Dunya Production TV dañ koy tëjee rek ak tiis bi nga xamné mo am fi ci yoonu Linguère ndax ben car Ndiaga Ndiaye bu joggé woon fële ci Linguère ak ben auto boo xam ni particulier la moom nag doon jëm ca booru maatam ñoom nag dañoo daje mbëkkante ah, kenn ñàkku ci bakkanam waaye kaar bi nga xam ni moo di Njaga Njaay moom nag dafa daanu daal di tàkk daanaka mën na na ba jeex tàkk ñuy masawu rek borom kaar boobu mbokkee xarit yi li moo gënoon a fës ci wàllu xibaar fii ci Dunya Production TV ñuy jaajëfal sunu technicien ak képp koo xam ni yaa ngi safoo Dunya Production TV ñu ngi leen di jaajëfal leen gërëm leen sant jërë ngeen